jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci golf fekk fi euh, ay xale yoo xamante ne vraiment ay ndaanaan lañu di suivre sport bi di MMA gis nañ fi ay champion yoo xamante ne ay mbëru làmb lañu ñu jógee ci làmb ji euh, en même temps di suivre euh, sport bi di MMA Bulldozer fekk nañu ko fi fekk nañ fi kii tamit di ol ol moom it nekk xale am combat boo xamante ne vraiment combat bu rëy la bu am solo la muy MMA euh, dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet di su ko defee ñu wel waxtaan bi champion nuyu naa la. Ah, asalaamaaleykum. Baye Dieng ñu lay fay. Hmm. ginnaaw bi ñu yàlla julli si leen sant suñu ñaari waajur euh, di ñaan suñu borom dafa ñu jàmm te nuyu yéen ñi nga xamante ne nii. yéen a fekk fii may entraîné suñu salle bi. xam na ni entraînement euh, MMA lañ fi pratiquer quoi waaw di waa salle bi yëpp di nuyu sama coach di ko bëggee bu baax a baax di nuyu sama mbokk yeeg xam nga ñëpp daal. bi mu ñaataat ngay prépa euh, MMA wala nga dugg ci sport bi di MMA. ñaataat waaw parce que cinq ans def naa cinq ans. juróomi at. waaw. mos nga ci am cinq fois. Hmm. Mhm. def naan naa quatre victoires. benn defet. benn defet. Ah, benn defet bi ah, kilo la ki ko ki la la mbër la wala. non non sama mbokku la parce que kickboxing moo gën a métti MMA. parce que kickboxing doo xam sa adversaire. da ngay entraîné rek ñu préparé la nga ñëw ba jour compétition bi ngeen ñëw pesé ñu ne la kii nga war a dajal. Hmm. Hmm. mais yow lan moo tax ngay ànd ak ay mbër ay mbëru làmb ba pare di suivre kickboxing ak. sport bii di MMA te gisuma la ci làmb ji làmb ji daa mel gunge gars yi rek wala dafa yomb. waaw ne xam nga kenn ku nekk ak sa yoon quoi ak kenn ku nekk tamit ak li nga bëgg. Hmm. loolu la. Hmm. bi la gère sama gain lu ñuy ànd guddi bu jël ñooy nekk. Hmm. mais kenn ku nekk ak sa life quoi. kenn ku nekk ak li nga bëgg a doon daal. wa man sama rêve mooy maanaam bëgguma nekk champion boo xamante ne Sénégal rek la yem. bëgg a nekk champion international. ñu naan all fépp. champion du monde quoi. loolu lay réew yàlla def mais nga jëm ci combat boo xamante ne ki nga jël xam nga ko. sen journée bi nga xam ne war ngeen ko laale muy es combat boo xamante ne yaakaar naa ni li mu mun a def ci sa carrière bari na. waaw parce que ki ma jël nii bay xool moom moo gën a nakaree utal adversaire Sénégal. xam naa ko. parce que parce que mooy champion du Sénégal. cinq mm. combats la mm. waaw parce que combat bi mujj bi ma juumul Gambie cinq cinq cinq secondes la dóor Hmm. waaw mais man xale laa te moom moo ma dugal ci MMA. moom moom. moom moo ma dugal ci MMA. nu mu la ci dugalee. parce que moom bokk nañu entraînement mënu ma boo gëmee MMA mënu sama soxna da ngay bàyyi kii mu seen doon def MMA. Hmm. parce que sa taay mën na laa may lu nekk. boo ko ci sant si loolu mais moom incha allah bisu yàlla defee jàmm rek le jeudi le 18 juin incha allah moom day xaar. yow moom mu conseillé la dugal la ci MMA nga dugg ci MMA am am ci combat bi mooy sa premier combat MMA. mooy sama premier combat MMA jël ko moom moomu doon dugal la ci. waaw parce que tamit man maa bëgg loolu quoi man may bëgg reyante ak gaynde. Hmm. waaw dama bëgg bëgg koo xamante ne ñëpp dañ ne moo fi mën gars yi di ko daw ma jël ko defaral ko parce que sama bëggee nekk champion damay foog ma gagné champion. Hmm. waaw te gëm naa incha allah rabi liggéey naa hmm. kooku du ma yàggal fenn. Hmm. gis nañ mbër yi ci bari léegi dugg nañ ci sport bi di MMA gis naa ci léegi Bulldozer gis nañ ci yeneen champion yoo xamante ne ñu ngi pratiquer sport bi ban message nga leen di jox sport bi moo yomb wala dafa neex wala dañoo jàpp ni mbër mi war na ko mën a def à tout moment. no MMA moom ku la yomb na da lay nax yombul parce que Bulldozer maa ngi nii mu def MMA. maa ngi ñoo bokk salle bi ñu defee kickboxing. Hmm. mais mosul compétir kickboxing. Hmm. man maa ko indi na ko indi ko mu def MMA. mu MMA mu ribu dañ parce que dafa metti fa nga nekk fa nga nekk der dëgg dëgg pour nga nekk gaynde. Hmm. parce que dara am yombul waaw. xam nga MMA loolu. MMA daaneel la tëdd ci kaas. lépp dóor ba nga kaaw walla nga dóor ba nga abandonné rek. waaw. Hmm. am na risque. sport am na risque moom parce que. ci entraînement yeeg. ci lépp waaw. parce que des fois suñu see dañuy gaañu. des amee ay semis. Hmm. waaw parce que suñu tànk dañoo dóor ba mu xoolee lii. Hmm. am na risque moom mais xam nga rek. sport bi ko laaj quoi. ñaata coach nga man instant bi nii kii rek moo suivi parce que suñu coach bi mooy moo moo yor moo nekk Sénégal bu instant bi MMA salle bi mooy salle bi gën a mag kii mooy coach Sénégal mm-hmm. mais mais actuellement jàpp nga ni jàpp nga ni sport bi ki ngay bëreel wala ki nga nar a combat ci MMA bi xam nga ay qualité am xam nga lu mu mënee ak lu mu mëneewul. waaw liggéey nañ si bu baax liggéey chaque jour. ndaanaan la. champion la la. ànd naa ak moom liggéey. Mhm. Mhm. nan mhm. naa la déggoo ma la champion la sam mooy champion du Sénégal instant bi poids lourd moom moomu kenn ñemewu ko. kenn ñemewu ko koo ne bamb day daw. man dañ ma ko jox man leen amul lu may tiit wala lu may dellu ginnaaw. am na xaalis MMA. a dëgg fa yàlla instant bi ñu toll nii combat bi ni ñoo ko jël en directement mais moyen boo xamante ni nii nii nii fay nañ ko ci. Ah. dañ ko bëgg jël pour wane suñu bopp pour génn. Mhm. génn wane suñu bopp moo ñu ci dugal. mais gars yi ñu ngi lay jàppale. waaw gars yi ñu ngi lay jàppale. waaw ku si mel ni tamit monsieur le maire Mamadou Talla Gadiaga. Mhm. mooy meer Malika. Mhm. monsieur le maire Mamadou Talla Gadiaga maa ngi koy sant bu gërëm ndax seeti naa ko xam nga mu ngi si jàpp bu baax a baax. ak ku si mel ni xam nga papa Mbaye ñoome. xam nga Baye Fallou Moussa le maire may ñemee hmm. mu si jàpp bu baax ak ku si mel ni Serigne xam nga bu baax hmm. depuis may am sept ans ba léegi maa si loxoom hmm. lu ne lu ma dugg rek da si sóobu ak doole bëggul lu ma lu ma am mu koy bokk ak man Serigne aw ma su ma demee ba dugg si sport su si kiiwee yàlla ak moom tax wallaahi lu la may defal dama damaa naqaree nekkal mais moom xam nga chaque jour soo meree sax day jaaxle lu ne la may defal war laa Serigne Law ama fayam yàlla rek laa may bàyyil. Hmm. ay ñoom vie xam hmm. ñoom ñëpp dañu may jàppale quoi waa kër ga bàyyi ma kenn. ak Paalin ku su mel ni Paalin tamit sama grand kooku moom depuis combat bu taxawee amul jàmm. Hmm. fu na lay dugg fu na lay ànd ak di jël xaalisam di ko dépassé man Paalin aw ma fayam ak Kousi tamit moom xam nga borom baax la. dañoo ñëw xam nga mu yaatal ñu. xam ne salle bi seen salle moom doxewul doxu doxu course day ñëw xam nga ne la eh, yéen sama frère ngeen. Mhm. xam nga bu ko neexoon mu ne carrément ma li ma xam-xam bi ma yor niwul nekkul ne fortu kii mooy ñëw rek ma yaatal sama saal di leen dafa ñëw moom xam nga pour uuf ndaw ñi pour jàppale ndaw ñi kon coach ñun amuñu faya dégg nga coach bi li mu wax euh, yan lañ kàddu ngay tàggatoo. waaw coach moom moom ñu naan ni Sénégal fii nii bay xool ñu xam règlement MMA dëgg-dëgg ak ñi nga xamante ne jàng nañ ko. macha allah fii nii booy xool course bu gën a pare Sénégal macha allah man su ma doon tànn moom laay tànn te bëri naa ci ay morom. parce que bon bu ma ñëwee fii liggéey bi rek boo ko xoolee sa xel dal parce que xam-xam baa ngi fi technique bi physique bi te tamit boo xoolee salle bi xam ne macha allah fii liggéey rek a fi am quoi. te moom loolu lay def day liggéey macha allah xam nga booy si jom ak fit ak fulla waaw moom. macha allah daal dañ koy ñaanal suñu borom xam dooleel ko bu baax a baax maa ngi lay jaajëfal bu baax a a baax. waaw Baye Djily may may ma nag ma am ma gërëm tuuti. kan mbër yee koy def yow MMA may def fa nga may ma tuuti rek. parce que xam nga nit. ci làmb ji. Eh, naan nit ki ah, boo xamul nu lay def rek boo xamul nu la def rek. la defa tax ni mu la defa tax. ay ca wooteel. bi la zer mi sama gaañ la sama doomu ah. ndey la. Hmm. sa guddi bëccëg ñooy nekk. sama waay la xam nga yow it sama père nga parce que yaa ma yow way nekk liir sa néeg yaay la fanaan. dëgg la loolu moom bu baax waaw. naa booy nuyul ma ko bu baax a baax a baax ak sama papa si waa kër gi ñun ñëpp yow maa yor yàgg na waaw lu ma si dolli mooy di nuyu waa Malika ñëpp bàyyi ma kenn di nuyu waa Saal bi champion bi waa Saal bi bi ay champion bi ne Saal bi xam nga bilaay ah, daal dañoo daw waaw gars ñëpp ay ñoom paa bi gars yëpp paa bi tamit da ñaanal ndam maa ngi moom ñoo bokk même jour bu ñuy comité compétition da ko ñaanal ndam di wax tamit maa ngi santaat su mel ni Yacine Mbaye jawar Serigne la waa kër ga bàyyi ma mais ak seex yi booy dañuy sonn man billaay seex yi may ñaanal chaque jour xam nga sama waa koñ bàyyi ma kenn dañuy waaj combat bi quoi combat bi ñëpp a waaj sama gars yi ñëpp waa Malika dañoo fonk combat bi ñoom duñ ma gën a gore quoi. billaahi walaay ku si mel ni surtout Serigne Law bi nag Serigne Law bi saa guddiwul nelawatul barki yàlla sa guddi suma ma tëddee sax day ñëw tàllam bi ba xam tëdd naa xam nga ku mel noonu moo ma yar daal dafa sonn si man Serigne waaw. ñaan jàmm ñaanal sama sama maam tamit Aïda Sow di ko ñaanal jàmm ak wér-gu-yaram ak guddi fan sama papa ba dara ñaanal sama yaay tamit Salimata Diaw fu mu tëdd yàlla ko gënal fu mu jigéen ak mboolem ñu fa tëdd ñëpp ak baayam ak sama maam ñëbbel ak sama maam Amar Sey ñëpp daal waaw maa leen di sant di leen gërëm daal waaw ñoom vie ñoom ñëpp waaw place ba jaayuma kenn jaajëf kontaan naa